dañoo nekk ci moment yoo xam ne moment yoo xam ne alerte générale la quoi comme ni ñu ko waxee dans l'armée mhm. parce que nit ñi dem nañ ba moment yoo xam ne pour am benn plus-value politique mhm. wala pour feeñ désir de paraître mhm. mais dañoo pare à tout ba wax lu dul dëgg ak wax lu safaanoog et tout ba Sénégal sax yàllaa ñu suturaal mais heure bi ñu ngi waroon nekk fii nation Unies di ñëw di ñu war a gérer waroon dugg ci ay conflits yoo xam ne heure bi kenn du tal lenn loolu naan ay paix ay nangam réconciliation la de wax d'accord major Kandi, en tant qu'un consultant comme nous nga dit, peut-être qu'il y a sinon Nations Unies que nous avons di régler lu avons dit que nous koy gis ci ay que nous avons ay voisins la yu que Mali dit que nous avons Côte d'Ivoire Burkina Faso mm-hmm. récemment Gabon en tant que gendarme nga da de métier manam vous na xam lu que bi ku situation bobu Sénégal ci at yi ñu mais liko très simple parce que les gens dañuy am ragal que Pastef a opté comme démarche politique bi mu Pastef lan mooy Pastef Pastef mooy Ousmane Sonko mais tas nañ ko waaw tas ko mais avant ñu koy tas xam nga ci le problème bi am. ok li li fi am c'est très simple. moy moy philosophie bi nga xam ne moom la salafiste di jangal nit ñi dans les pays dañ né da ngay fexé ba jangal xalé yi. bu seen papa waxe ak seen yaay ñu weddi leen li ñu leen sant duñ ko def. ñu né da ngay fexé ba kër go dugg. jabar ji di ak affaire politique ay affaire seen projet bi. jabar ji di reyante ak jëkkër ji frère yi di reyante seen biir. kenn du jubo ci projet bi. ñu né da ngay fexé ba xalé di saaga kilifa diine di saaga magistrat di saaga gendarmerie di saaga police yi léegi moment boobu lañ tolloon parce que ñëpp gis nañ ne noonu la démé won mhm. mais lolu école salafisme la mhm. lolu ñëpp xam nañ ko bi ci des moy l'art de faire la guerre ben livre la boo dañ koy jang moy l'art de la manipulation de la délation du mensonge et du complot pour manipuler ben réew wala ben régime ba nga xam ne day am ay failles ba nga xam ne day am désordre mais Sénégal ñun euh, particularité moy heureusement pour nous nous sommes très administratifs sur le plan militaire comme civil. Mhm. donc avons am gendarmerie qui xam ne ak police. ak armée yoo xam ne dañuy dans la proactivité et dans la stratégie. Mhm. donc nous ñu sauvé. parce que gendarmerie ak police ko dañu concerté avec ak armée bañ xam ne lii mais population xalé yi nga xam ne ñoo doon génn. Mhm. ñu leen di jàngale gatsa gatsa violence ak résistance mhm. ñom xam nañu ñi dañ leen manipuler ci ci ci philosophie yi ma la wax tantôt moy weddi sa waajur bu la téré wala mu centre la doo def bu la téré nga def mhm. donc da ngay fexé ba yeen ngeen di jaxasee jiixi jaxa population bi ñepp kenn da tudd bok sa morom mhm. ñi en en la parce que da nga jappalé ne li état bi def mo normal jappalé nit ñi fexé nonu fexé ba ñuy saga mara bu yoy donc finalement nous stratégie bi c'était quoi annihiler l'ordre public maintien de l'ordre public mais aussi en protégeant les yi nga les ay mineurs qu'est-ce mineurs yi kese lañ woon yuy manifester nga fexe ba am problème mu gaañu ak faatu mais malheureusement gis nañ ne ci seen i pexe ak yeneen on a vu au Sénégal ñuy jaxase jeexi jaaxa jaxase xelu ñëpp ci ay mort d'homme y a ne yàlla xam Il y a buñ ko qui ont été saytu ils ont dû fuñ ko mais la gendarmerie et la police ak l'armée nationale ak le ministre de l'intérieur de l'époque et le président de la République et ses démembrements mhm. ont faire preuve de résilience ils n'ont jamais utilisé ni les armes mhm. ni la force mhm. nécessaire pour pour réintégrer. mais am des fois dem nañ ba une ñuy yàq ay euh, euh, terre mhm. parce que dañu xam ne bu ñu la solution était d'utiliser les armes pour en empêcher le régime les gendarmerie et la police autres ont préféré ñu yàq ay milliards que ñu ñàkk seen i loolu Sénégal rek la am bu amoon ci beneen réew benn réew du lem leb leb deux mille milliards muy quatre mille milliards. Mhm. ay sénégalais nit manipuler leen. Mhm. ñu di ko yàq te doo ko jëflanteeg ñoom. d'une manière létale mooy manière boo xam ne sax ku ci dees sa problème lay doon. Mhm. mais Sénégal dañu am résilience boobu président de la ci matukaayam ak ci ci intelligence am. ak ci humanisme am ah. yërmandeem il a fait de sorte que.

voilà film naar yo xamanteni ni ñoo doon def ay attentats yo xamante ne dañuy takk bomb pour rey ay. c'est ça dañ koy jàngal dana jaar na ko. mais tay lan mo doon rôle état ñu foog état da waroon prévenir gis nañu li fi xew mars 2021 est-ce que du woon faiblesse su état ou bien l'état n'était pas encore préparé ou parti bobu nga xamanteni tas nañ ko bettul état. non dafa bett état. c' voilà donc est ce que amul benn laxisme boo xam ne état war def. parce que non y' a pas de laxisme mais xam nga c' était la première fois c'est-à-dire nous comprendre parti politique nous ñëw déclaré wu nii waa commencé na ay affaire. Mhm. mais en moins d'un mois il a mis en œuvre le projet de destruction de ce pays ça allait passer. mais donc il y a une proactivité. dans la proactivité du Berne, mhm. ak bu événement bi deux comportements. Mhm. L'État doit dafa agir ou mu réagir. agir bi mooy proactivité agir. Ah. mais ici il faut qu'on soit honnête mais la capacité de nuisance mhm. de passer dans cette affaire là mhm. mais kooku état africain ne ko fasse. qu'il y avait des forces obscures comme nous qui sommes dans des gens capables de détruire un pays en moins de 24 heures nous ko won soralé mais il y a des gens qui démentent qu'il n'y a force aucune, oh. amul présence sérieuse. Parce que j'entends souvent sur les plateaux, au journal siècle, Antoine force Pourquoi Alors mais on a accusé Commando Pastef comme euh, l'autre oh. Kabadia et on voit des gens, des voisins, des témoignages de Falco, du nit ko xamanteni mën na def lolu hôtel am la yor do liggéey même Amadou Ba xam mané mané je vous dis monsieur bu la gaay net programme yi def gis nga ñi lañ préparé je te jure bu doon heure bi réussir na doo gis ci dëkk bi euh, sëriñ buy wax. d'accord xalif yi ngay dégg ak ay tarix ak yooyu ñii bu njëkk woon doo déggati ñuy wax te et puis gis nga xamul tax pour la pour confirmer il donne raison à ñi nga wax ne dañuy seet des parties obscures des du salafisme des parties obscures mais ci la ñoom erreur bi ñu def mooy dañu dem CEDEAO pour la dissolution de Pastef après l' enquête et les infos vous savez ñoom dañu fàtte ne àdduna bi dafa am Interpol day joxe renseignement ambassade dañuy joxe renseignement Europol de joxe renseignement Schengen gis nga ñoom Interpol ngay dégg mais y' a tellement de formules de joxe renseignement il y' a Europol y' a Schengen il y' a Interpol il y' a le FBI. dans la section externe. on a donné toutes les informations à l'État mais la sagesse et le calme de la police de la gendarmerie ils n'ont pas utilisé de armes parce que xam nañ ne temps manipulation bi demee na niveau boo xamné ak xale ni ñu leen organiser dans les quartiers et tout ba sorte que so sont deful attention de da dans la lutte antiterrorisme avec des armes ñu problème mais non mais ils ont été on euh, a leen ay salafistes lañ ay terroristes c'est CEDEAO Mais dem mais c'est c'est CEDEAO le Sénégal a dit que le parti est un parti qui porte atteinte à la à la à la sûreté de l'État ah. qui qui est insurrectionnel de terroristes, de machin machin les ñoom ñu dit cest nag ñoom dañ doon tromper nit ñu dem CDAO. CDAO a confirmé que effectivement après enquête et investigation le parti Pastef était un parti euh, dangereux de salafisme et de terrorisme et de violence et d'atteinte aussi à la et qui menace même pas le Sénégal hein, mais qui menace l'Afrique donc ils ont confirmé le Sénégal def Té légui dégg na so ñoom ñi ngi accusé ne ñi ngi dégg naa sax benn journaliste ñu moo tax ñi sont dangereux benn journaliste dégg naa léegi bi may ñëw mu ne yaa yaa CEDEAO ba ñoom ñoo def complot pour pour euh, pour euh, confirmer ne avec avec la cour de la CDAO. quoi ñu ne ñoom poids nous avons def influence. Mhm. tout de suite nous avons des ci influence pour que Gaï ne passe pas sur le euh, confirmer la dissolution. Ce n'est pas vrai parce que nous avons confirmé que le parti là était un parti obscur mhm. des forces obscures des forces dangereuses et ça compromet la sécurité de de la sous-région parce que nous, le but c'était quoi ils ont réussi à ce que les enfants ne ne ne ne n'obéissent plus leurs parents. Mm-hmm. ils ont réussi à ce qu'il y ait des discords dans les familles et dans les corporations professionnelles services yep, yëpp ce nekk rey sa bopp. fexe commencé à saaga marabu yi ndey den il restait d'après le monsieur il restait qu'à prendre le pouvoir et s'imposer et mettre la loi euh, prendre le pouvoir et mettre la loi ce lañ nous doon egsi parce que l'État dafa am xam-xam bi ba ne ab argument yi wóor preuve yi ngi ko état de dafa de parti bi d'accord te attention si les gens continuent les investigations nous <coughs> entre nous. on peut les enlever là où ils sont comme maire comme député et tout parce que c'est un blanchiment humain. d'accord blanchiment humain c'est comme le blanchiment d'argent ku ci laal d'accord.